suñu taxaw koor gi nañu ko daan defee te sàmmonteeg fi jamono toll ku noo xam ne day daayira Moukhaddamatoul Khidma waxtu nekk lu mu jublu lu ne bala caa jublu membre yi bokk ci bureau bi yëpp dañuy daje waxtaanee lañu ñu war a tënk ngir jëm jëmmal ndëgalul sëriñ bi ci barab bu tedd bi ci jumaay Tuubaa kon loolu taxoon tey ñu def am ndaje ngir waajale ko koor gi fas yéene lépp loo xamante ne mooy li sëñ bi digle ñu def ko ci koor gi lépp loo xamante ne tamit noonu la ci dële ñu def ko nuñ ko bëggee commission yi tamit kenn ku ci nekk daje nañ waxtaan nañ ba kenn ku nekk la nga daa taxawee la ca sa wàll ak lañ lañ ca daa defee ñu def ko ginnaaw bu ñu leer la liggéeyub daaw ba kenn ku nekk commission leeraa nga la nga war a liggéey ak ñu ngi ko war a lépp li ci des mi ngi suñu kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi